même bu fekkee ñu ngi dégg tur wala kuréel bi mu jiite waaye kanam bi daanaka ñu bëri miinuñu ko ndax euh, dafa mel ni lu muy euh, addu bëriwul euh, moom nag moom moo jiite li nga xamante ni moom mooy le comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy mu di COSCAS COSCAS nag moom su ma ko waxee ñu bëri nag xam nañ lu ko waral ndax euh, ku dem Tiwaawan yàgg dem gàmmu wala yeneen i xew-xew ay ziyaara yu ni mel di nga xam ni COSCAS li ñu dénk euh, kuréel gi ñu dénk wàllum organisation gàmmu gi mm. euh, moo jëm ci sécurité moo xam wàllum xéewal xéewal yi maanaam togg yeeg yu ni mel lépp daal lu jëm ci organisation ñoom ñoo ko yor ñoom waa COSCAS ñoom nag lañ fas yéene dalal rawatina ki jiite kuréel gi di maam Ousmane Samba maam Ousmane Samba ñu ngi lay gërëm di la sant di la surtout gërëm ci ni nga ñu nangulee ñu amal waxtaan bi xat bi euh, euh, xam nañ ni sa sa jot moom vraiment bëriwul. Mm-hmm. mais daf nga déplacement bi ñëw. Mm-hmm. waxtaan ak ñun waxtaan ak askan wi. Mm-hmm. ci lu jëm ci li nga xamante ni moom la ñu dëgmal mu di gàmmu Tiwaawan di la ziar di la gërëm. Euh, waaleykum salaam Bira. ñu lay nuyu di la ziyaara yow tam di ziyaara seen waa télévision bi yëpp di ziyaara seen téléspectateurs yi téléspectatrices yi vraiment di am mbégte aussi ñëwal fi sama bopp ndax yàlla dogal na mu ngi am ay at chaque fois rek ngay souhaiter ñu <laughs> bokk plateau waaye muy xaw di jafe loolu nag ñu ngi la si sant bu baax di wax ni bu ñu ñëwee itam c'est vraiment pour rendre hommage aussi surtout ndax at mu jot rek nga sàkku ko wax dëgg yàlla muy jafeñ hmm. moo tax ren daal je tenais très tôt vraiment ñëw vraiment ñu ñu def mottali suñu yéene maa ngi leen di bu baax. di leen si di la ci gërëm di la ci gërëm comme ni ñu ko waxee at mm-hmm. at mu nekk ñu koy sàkk waaye eh, dañuy comprendre aussi que ni yëf yi parfois dafay xat lool. Mm-hmm. surtout yow mi nga xamante ni dangay def navette bi te awoon dem yenn saa yi toog fa lu yàgg di di mm-hmm. jënti eh, organisation bi. kon di wax rek ni COSCAS. COSCAS eh, ñu ñu ngi ko samp 1968. lañ ko samp. wax nañ li ko taxoon a jóg moo di. Euh, wàllum organisation gàmmu dañuy defar rek benn bref rappel bref rappel ci euh, kan moo ko samp parce que bu ñu nee comité bi au service de Khalifa Ababacar mu nekkoon fi xalif général de Tidiane ci ay jamonoom ci jamonoom lañ ko samp COSCAS euh, ñu ko samp en 68 biñ koy sank fekk na Seydi Aboubacar ci làqu donc 68 ñëpp xam nañ date boobu lan la wundu ci histoire réew mi ci wàllu jafe-jafe euh, ci wàllu syndicat yeeg euh, étudiants yeek politique yi réew mu yëngatu woon lool. tombe woon nag euh, ak gàmmu Tiwaawan autorité yi yaakaaroon ne du ñu am lu mat pour dem taxawu gàmmu gi biñ ko waxee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu si xalaatam donc la waxe Serigne Abdou ne ko daal euh, état bi duñu mën a envoyé ay ay ay force de l'ordre pour encadrer gàmmu gi mais nañu ut alternative si loo ko waxee ne mais ñi ñu yónni ay nit lañ donc bu fekkee loolu la jamono indi nañu tànn si mbokku taalibe yi ñu ñu leen remplace ba ba yàlla ba jamono soppeeku donc si noonu la ñu tànne lim 71 personnes pour que ñu encadrer donc euh, wàllu gàmmu gi organiser encadrer jouer wu sécurité bi gàmmu ga passé nag la sëñ Mansour xalif général aussi ñaan na daal même bu jamono soppeekoo ba autorité ba force de l'ordre yi ñëwaat nañ fi bàyyi bi comité boobu nekkagul xalif. boobu nekkagul xalif boobu sama bàyyi El Hadj Abdoulaye Aziz Dabakh moo nekkoon xalifa hmm. donc euh, mu ne daal nañ leen fi bàyyi parce que seen taxawaay daal jàppandal na noo xam ni bu doon fas de l'ordre yi doo doo ko sañ si ñoom. te ñii comme ay njaboot lañ ci kër gi lañ bokk ay taalibe lañ xam nañu bu baax loo xam ni sax war nga ko def te doo leen ko sante hmm. mu ne daal ñooñu même bu ñëwee sax nañ fi bàyyi li mu nekk comité organisation waaw si noonu nag la COSCA juddoo kon mu ngi juddu si xalaat système Ahmed Tidiane si Al Maktoum. Al Maktoum biñ ko ñoom nag ñu ko defee ñu confier mission bi seen Abdoul Aziz si Al Amin. kon euh, Al Maktoum moo samp. COSCA mhm. waaw dëgg-dëgg nag. waaw Al Maktoum uh-huh. di samp Moustarchidine wala Moustarchidaat. waaw man nañ ko wax wax dëgg yàlla. <laughs> mais. boobu Moustarchidine amagul woon. déedéet du tout Moustarchidine yàggul Moustarchidine ñun ñi ñooy premier membre Moustarchidine. ah oui loolu loolu yàggul Moustarchidine c'est vers les années les années quatre-vingt. mais mission yi du woon benn. waaw mission yi du woon benn parce que lii COSCAS du daayira service la. du daayira. Hmm, Moustarchidine daayira la. Mhm. waaw daayira la à l'origine. Mhm. des fois ñuy wax da mouvement Moustarchidine. Mhm. mais daayiratul Moustarchidine la tudd. waaw donc euh, alors que COSCAS nag si service la rek. service la association la bu am récépissé am ay am kayitam association privée la. te ah. ku fi nekk xalif ci sa service lay nekk. waaw ci sa service lay nekk sëñ Abdou loolu la ñu doon wax ne c'est au service des xalif. ku fi nekk xalif rek. donc bu gàmmu jotee yaay décliner les orientations yaay wax ni nga bëggee gàmmu gi demee. Mhm. su ko defee loolu nag la COSCAS di jëm di matérialiser. d'accord waaw dans leur mission d'organisation et de participation. waaw loolu am na solo. la waaw lële boobu. Mhm. Euh, lële daayira la. mais mhm. lii. Euh, du daayira. Euh, service la ba nga xamante ni. Mhm. képp ku fi nekk xalif. ci say ndigal lay wéy. nga wax ni soixante onze membres la woon. bi ngeen di door. mel ni Costas soixante huit ak deux mille vingt ñu ngi ci plus de cinq mille membre membres yi nu leen di waaw bu njëkkoon 71 membres yi si sélection bu rigoureuse dañ ko daan dañ leen daan recruter donc euh, nit daana sax bëgg bokk. Hmm. ñu jël sa tur mais di enquête yow la kan vraiment parce que ñoom. <laughs> mag ñi biñ koy def moralité. waaw ah, si si parce que dañ ko defoon si benn devise devise euh, boo xam ni euh, foi discipline et discrétion. donc ñoom discipline et discrétion. et discrétion waaw depuis 68. donc euh, première vague bi loolu lañ organiser woon kuy bokk aussi da ngay ngay da ngay bind lettre wax sa adhésion ne da nga bëgg a bokk mais wax nañ ñu sax diggante bi ngay postuler ak bi ñu lay enrôler daanaka mën na six mois mën na fi jaar si boo amee chance bokk. moo tax c'était très sélectif. donc ils sont restés 71 membres ba ba jëpp lu yàgg soog a passé à 371 maintenant après 371 si recommandation. sama baay El Hadj Abdou Dabakh Abdoul Aziz Dabakh si la presque yeggee mille à deux mille membres. waaw mais nag si dundam. Mhm. par la suite nag euh, vers les années deux mille le Serigne Abdou Al Amin ñaan na daal nañu nañu massifier le COSCAS. Mhm. li taxoon mu bëggoon ñu massifier ko mooy permettre aux jeunes ñu rapprocher wu si xadra bi. Mhm. pour ñoom itam vraiment. qu'ils prennent nga mën ci dugal sa loxo. waaw kay qu'il commence à prendre part à l'organisation. waaw bu jëkkoon c'était pas aussi évident. Hmm. si lañ ko massifier jël ndaw ñi góor jigéen et puis assouplir condition de de recrutement yi. d'accord voilà. ba léegi assouplir ngeen ko mais waaw dara par exemple nit ñi ñu ngi ñu ngi adhérer à partir de leur section. COSCAS contre compte presque quatre-vingts sections. waaw ah ouais. au Sénégal en Gambie en Mauritanie dans la diaspora. et à, au Gabon aussi. voilà donc euh, so quatre-vingt c'est des sections yoo xam ne structurées avec un bureau. Mhm. donc booy adhéré yaa ngi adhéré au niveau de cette section par exemple man su ma jogee su ma dëkkee Yoff bëgg a adhéré dañ may renvoyer à la section. de Yoff de defee fa ngay dem ñoom itam il faut ñu wax la les conditions. pour adhérer gis naa burdu bi su ubbee da ngay gis ay tuut tànk sax léegi ah, ay xale yu ndaw ñu sol yére koskaas waaw ah, vraiment euh, xaw ma dañ leen ci tàggat pour après ñu mën a gën a dugg mais daal gis naa colka gi moom da gis xale yi euh, très discipliné même dëgg la seen yéene way jula mais lu si bari xale yi ñoo koy laaj boo xale yi dañ lay gis nga sol ñu ne la papa dama bëgg ba mu bëgg bokk yow tam vraiment euh, pas plus tard qu'hier rek maa ngi si xale bu ndaw mm-hmm. ndeysaan mu ngi ko sol mais ça te rappelle beaucoup de choses te loolu lañ souhaité mais souvent dëgg la waajur yi dinañ bëgg seen xale yi bokk si mais la plupart du temps si li ma mën a témoigner mooy xale yi seen bopp ñooy wax ne daal dañu bëgg tenue bi alors à partir de ce moment da leen koy jox même boo leen di bàyyee ñu di ko fooye sa xale tam lu muy fooye bu bu màggee dina ko dina ko sopp ko ñu gis ni ñu ngi gérer organisation bi wàllum sécurité. Mm-hmm. wàllum tànt yeeg bâche yeeg yu ni mel. ak mm-hmm. ak yenn pàcc ñoo nekk ci biir COSCAS. waaw bu jëkkoon COSCAS comme li ma wax mission d' organisation et d' encadrement rek la woon parce que boobu pour def gàmmu daanaka l' autorité religieuse moo daan daan financé mais gàmmu nag ni mu commencé di màgg nit ñi di gën a ñëw la ñu commencé am non seulement mission d' organisation mais de participation. c'est-à-dire participation financière. waaw donc commencé di cotiser. à partir des sections. donc euh, mais après avec presque une dizaine de commissions commission culturelle commission scientifique commission décentralisation commission jeunesse mm. n'est-ce pas commission d'organisation commission financière mais bi si gën a taxaw nga xam ni moo yanu liggéey ma laay commission d'organisation nga xam ne dafa compter presque vingt trois sous commission ñooñu nag lépp lu jëm si wàllu restauration hébergement assainissement salubrité ordre et sécurité donc ñoom ñoo koy jël en charge sans compter les commissions techniques ñu yootu wàllu sonorisation ñi nga xam ni c'est ñoo technique pure mooy c'est des c'est des corps de métier yoo xam ni bu gàmmu desee dix jours ñoom ñëpp ils replient à Tivaouane sans compter commission yi nga xam ni nag bon vraiment ñooy euh, la commission culturelle nga xam ne tout ce qui a trait à au thème du Maulid et à l'animation des des des capsules ñi préparer les porteurs de ñoo ñooñu donc ñooy ñooy ñooy ñooy ñoo chargé wu loolu. d'accord donc pas une bonne quand même une bonne structuration. bu ñu nee euh, comité d'organisation. Mm au service de Khalifa Ababacar Sy. Mm-hmm. ñu xam ni euh, suñu maam Khalifa Ababacar. Mhm. nekkatu fi. Mhm. Euh, lan moo tax ngeen bëgg a maintenir tur bi. Ah, la rek comme maam Ousmane Samb rek moom <laughs> tur la rek vraiment la première fois que ñoo ko tuddee noonu bon nit nag turam même bu màggee du tax ñu changé ko. bon am na ñu doon wax ne est-ce tur bi euh, non y a besoin l'essentiel mooy mission bi mu bi mu yanu rek. waaw mhm. ah, mission bi mu yanu rek. donc xëj na pour ne pas gêner moo taxoon mag ñi def noonu tudde ko sëñ Babacar Si te te te aussi mu mu mu mu mu rafet waaw donc euh, c' le premier xalif de Cheikh Seydi Hadji Malick donc à partir de ce moment si silsila bi ñi ñëw ñëpp si gannaawam la ñuy topp bu fekkoonte ne dañ ko tuddee laneen te di ko changé kon nous risquons ba léegi kon porté na combien de noms parce que depuis sëñ Babacar Si ay <laughs> Alaaji Abdou donc sëñ Mansour Serigne Cheikh moo tax tur la rek te nit tam buy buy juddu day am tur mais bu màggee du du du dal du laaj fu âge am toll rek nga changé tur. bu jëmee ci wàllum cotisation yeeg yu mel xam nga parfois dañuy gis euh, yenn événement religieux bu weesoo. Mhm. Euh, xam nga xaalis sax moom dafa xaw a sensible ñu bëri duñ ci faral di addu mais mhm. euh, tout gàmmu. teewoon mhm. approximativement. ci euh, mën nañ xam à peu près ñaata euh, le COSCAS di yittewoo euh, at mu nekk wala est-ce que dina jot objectif bi mm-hmm. wala est-ce que dina am yeneen ndimbal mm-hmm. yu jógee ci ay bonne volonté ay mécènes ak yu mm-hmm. waaw dina di am wax dëgg dina di am dina di am ñoo xam ni dañuy dañuy dañuy à partir de xam nga dafa am ñaari membre dafa am le membre actif koo xam ni day cotiser c'est dix mille francs chaque année c'est-à-dire membre actif mooy ñiy sol yu vert yi mais et des membres de soutien yow mii man nga nekk membre de soutien mooy ticket de souscription yi envoyé ci section yi mm. ñooñu nag vraiment da ngay gis ku am ñaari téeméer la am mu jox la ñaari téeméer nga bindal ko ticket am na koo xam ne cent mille la am mu jox la cent mille nga bindal nga defal ko reçu donc euh, pour estimer le coût bi la ko reçu yeeg ah si euh, oui euh, moom c'est des carnets yoo xam ne après <laughs> président section yi ñoo ko yor après dañ koy restituer waaw ah, donc pour la transparence et puis day am de assemblées de de de rapport rapports financiers waaw ah, donc nga ñu wax ñaata lañ jot ci gàmmu ci kii bi cotisation yi ak aide yi ñaata lañ ci dépensé ñaata moo des yooyu yëpp c'est c'est fi puis en public Super. Vraiment, c'est une, c'est une, c'est en assemblée générale euh, vraiment publique la ñuy defee décliner tous ces rapports-là, rapport moral, rapport activité, rapport euh, financier. Mm. voilà maintenant euh, du association boo xam ne c'est comme toutes les associations donc dafa am base religieuse ci kër këru diine la bokk donc moo tax du ñu estimer mën nañu estime mën nañu xam gàmm gi lan lañ dépensé mm. mais ñaata et puis loolu mooy loolu mooy li nga dépensé ci commission yi seen budget yi ñuy indi parce que chaque commission day décliner chaque année son budget wax li mu soxla donc ñu arbitrer légèrement jox ko mu dem waaw donc mais c'est difficile d'estimer parce que loolu li ñuy wax ni mooy rek li COSCAS di di def di financer hmm. mais tey boo demoon ci xalifa bi peut-être la muy dépenser moo ëpp li COSCAS di dépenser boo demee tam ci ci El Hadji Malick Dabakh ñoom tam bu gàmmu jotee seen kër yi donc ñoom ñëpp dañuy dépensé te loolu nag la mooy seen héritage ñoom itam nit ñi dañuy fréquenter seen kër yi ñi amul dal fa la ñuy dem seen ëtt yi toog te ñoo leen di yor restauration donc c'est difficile mais au bas mot daal vraiment c'est plus de c'est presque cent millions par par mawlid ban mawlid ngay fàttaliku ci jafe-jafe organisation jafe-jafe koppar jafe-jafe pour daal yëf fi mën a yemb yan euh, mawlud nga gën a nga gën a fàttaliku ci réussite mais aussi ci ci difficulté d'organisation ah, première année de ma ma de la <laughs> première année bi ma nekk président ban année la waaw defe naa c'était en 2009 waaw parce que boobu daal vraiment foofu la moo gën difficile ah, waaw si lay doole porter affaire bi et donc c'était j'étais dans l'apprentissage mm, mm. Ah, boobu daal laa si fàttaliku sinon le reste moom te loolu dafa metti woon waaw dafa metti parce que vraiment dafa metti parce que donc euh, bon dañ la ko jox nga ne si phase yu réorganiser hmm. l' appareil. ci sa vis ak gis-gis bu bees. ak ah bien sûr bien sûr parce que yàgg nga ci mouvement bi tamit xamoon nga. waaw xamoon naa waaw xamoon naa si bis et puis c' était pour ça donc euh, dañ ko defoon pour que ñu relancer waat. Hmm. avec de avec lu masul xew mooy des membres jeunes yu bees ñoo xam ni seen orientation et puis restructurer waat le mouvement. Donc il y avait l'historique est clair la nouvelle vision et les dañ ko waroon expliquer et puis maîtriser ko restruct réorganisation restructuration donc nag et puis presque dama ko jël deux mois rek gàmmu ñëw. ok waaw dañ ma dama jël présidence rek deux mois après gàmmu ñëw. Mm. donc là foofu daal laa sentir difficulté te boobu amaguñu vitesse de croisière bi ñu am ni donc. Euh, mais par là à part année boobu daal vraiment c' est waaw. du ñàkk difficulté nag. gàmmu moom mos naa la laaj ci waxtaan daje nañ ca ma laaj la ni la. Mhm. Euh, ban gàmmu. Mhm. vraiment ngeen euh, di fàttaliku ci ay jafe-jafe. Mhm. nga ni ma euh, bi al maxtuum al bi mu làqoo. waaw waaw boobu da ngeen vraiment métti woon na daal ci yéen. waaw boobu wax boobu c' pas sur le plan organisation. mais c' parce que. <laughs> rôle bi mu daan joué la. Hmm. c'est-à-dire c' était la présence vraiment présence je di la présence de Sëñ Abdou. Hmm. donc euh, koo xam ni depuis Koskas juddu yaa ko daan vraiment yaa ko daan manager. Hmm. waaw da nga dem ba c'est-à-dire même boo bu waxul lu fekk nga xam ni mi ngi si mu ngi si kër gi rek. vraiment yow sécurité la. donc c' est vrai année boobu moom c' était mais c' était plus son absence physique que que l'organisation. parce que da nga daan jekki ji foo xëyee foo nga dem nuyu ji ko bon avec moom xaal xaal bi mu amoon si soo sourire. Mm-hmm. vraiment day mel ni boo ko gisee ba wàcciwaat ci liggéey bi vraiment tu es boosté. Mm-hmm. mais bu génn àdduna fa mu nekkoon ñema ñoo fa dem. moi je suis resté longtemps di yéeguma sax sur le plan émotionnel. non yéeguma yéeguma du ma dem fa mu dëkkoon du ma dem si xabro je suis presque resté dama koy wax sëñ Moussa Amine ma ne que j' jusqu' à présent j' ai boobu léegi ma ne que je mu léegi du ma yéeg fi mu dëkkoon du ma dem xabro mënuma ko nii laa koy rombe du bu ma rombee sax du ma xool fi mu tëdd super voilà donc euh, c'était cette difficulté là c'était plus émotionnel que euh, ouais. voilà mais voilà te loolu quoi organisation bi naka ngeen di def ak wàllu politique ba euh, ba ba vraiment daal du ko gangréné xam nga Sénégal moom politique moom dafa nekk ci loo xamante nii loo tudd rek politique mu ngi wut prox ndoll pour jaar fa pour am lu mu bénéficier wu nan ngeen di ñage organisation bi ba politique bi du ko du ko gangréné ah on leur permet de de jouer leur partition rek et puis euh, parce que si Hadj Malick waxuma politique yi sax mais de manière générale bi muy wax gàmmu isa lam yakun naxwal xaraami udóolu loolu la wax waaw euh, donc euh, célébrer la naissance du du ak condition que vers euh, l'illicite l'interdit cela ne vous incline hmm. iza lam yakun naxwal mi udul à condition que vers l'interdit cela ne vous incline et donc loolu principe la de de mais politique yi politique Seydi Hadji Malick daan wax rek moom da leen di jaaroo rek waaw moom c'est un mal nécessaire mhm. waaw mënoo leen a bàyyi ba mu jeex waaye tam mënoo leen jël ba mu jeex waaw da leen di comprendre rek bu ñu ñëwee nga bàyyi leen ñu def lu ñu bëgg a def te yow itam bu ñu paree nga continuer def li nga li nga bëgg def. seen i am nañ droit def seen politique. ah mais bien su amee ah, mais bien sûr. ba ci kii ko jiite. ah waaw waaw bu rafetee rafet. ba ci yow ah bien sûr. Hmm. <laughs> bien sûr parce que dañu jóge si ay gox. mais loolu est-ce que mënul influencer tamit les membres. non non parce que tamit. dañu bu ñëwee ne day politique. waaw jiite COSCAS. waaw ndax loolu du influencer membre. de waaw peut-être. mais aussi du yow yaa si doo si jublu mu influencer leen. mais ñun ñëpp on est des on est des citoyens on est des l'islam ne laisse pas neutre son sujet à la politique aux travaux de réforme mondiale et puis on est des jeunes on est des dañu jàng on est des intellectuels on est des acteurs de développement dañu dëkk si ay gox au contraire moom parce que jeune nga da nga bokk si tarixa doo ne pas s'intéresser à la politique c'est ne pas s'intéresser à l'émancipation, au développement de ta localité, de ton pays. Ce pas incompatible. Au contraire, nous en comptons beaucoup. Beaucoup ay partis, beaucoup ay vision politique. Euh, politique parti yi gën a radical fii suñu membre suñu suñu membre nga fa duñ jeex. Ah et il joue des il joue des rôles. bien sûr mais ce que nous exige ñun notre confrérie et notre religion dans nos préférences. loolu la exiger ku nekk dans ses préférence mooy bañ a jaxase masala mooy bañ a jaxase masala mooy bu ñu fa dajee xam nañ ne li moo ñu fi daje te même en en pleine organisation on se on se lance des pics ayul. Euh, mais bokkuñu position jamono yi joxe ndigal amoon na fi ay jamono. waaw. Euh, boobu nan la COSCAS daan taxawee. waaw ñun nag euh, bu dee en tant que l'entité ñun position bu suñu kër jël rek la ñuy jël. bu mu jël ouvertement bu mu jël ouvertement rek la ñuy jël waaw vraiment dal nañu si histoire lu yàgg-yàgg mu jël rek la ñuy jël il faut être conséquent mmh. et puis y a la hiérarchie des normes parce que te nit du di boppam mmh. waaw position bu mu jël loolu moom amuñu si benn amuñu si benn kii c'est-à-dire ñun suñu intérêt diine ak suñu tarixam moo ñu gënal suñu position politique parce que après day jeex politique ki nga faral sax bu daanoo nga uti kaneen mais sa tarixa bu xalifa bi bu xalifa bi jógee doo uti beneen tarixa waaw vraiment les chose àdduna noonu la tëddee loolu nag nit moo koy xam lii jeex doo ko jëndanteex lu dul jeex jamais de la vie jamono nag moo indi les leaders confrériques mais des fois jamono moo leen di imposer ils doivent prendre position ci surtout si Sénégal gi oui mais personnellement. waaw moom nga jël sa position personnelle. Ah, mais quant ah. à dem ba naan taalibe yi euh, xool leen fi may xoole alors que yow taalibe yi dañu ànd ak yow ndax tarixa bi wala ndax diine je pense que. waaw mais xam nga loolu d' accord man gisuguma sax époque boobu est ce que c' est pas révolu xam nga gisuguma dëgg dëgg dëgg nit ñi ñooy wax rek ne diw nee na man toogaguma ak benn sëriñ mu ne ma faralal diw. waaw ah. ki mu si gënoon jegeñ mooy sëriñ Abdou. il me l'a jamais mais di nga xam ne dañuy discuter vraiment moom il était très ouvert dañuy discuter mais yaay am kersa ni mu nekk sa jur nekk si sëriñ nekk sa guide jël position wax ko public naa ngay def la nen loolu après boo ñëwaatee loo koy wax surtout que moom tu tu tu as une confiance en lui xam nga ne lu mu def am na se lu mu ko teg et il en discute et j'avoue que. position yi mu jël yëpp daf noo yey raison yoo taxoon mu ne lee tax ma di ko def daf noo yey ñun ñëpp la yey donc bon bokkul nag koo xam ni peut-être kooku laa mën a joxe exemple moom laa jege. d'accord bon dëgg la nag am na ñoo xam ne sañ nañ wax seen jaboon ne faral lañ diw loolu même même le pouvoir coutumier bi ñu bokk sañ dañ koy def ñun fi ñu dëkk y a des pouvoirs politique coutumier ñoom sax dañuy jël position ne pas prendre position pourquoi hésiter à prendre position. sëñ Cheikh da daan wax quand je suis quand boo ne je suis mu ne la contre qui mm-hmm. les choses sont tellement liées que nag par su ngeen faral diw mais yow bu ma dee sa kilifa ne la faralal diw mais boo duggee si urne bi mm-hmm. <laughs> man nekkuma fa mais tu fais ce que tu veux. bien sûr waaw après. Mm-hmm. moo tax affaire yu ndigal yooyu c'est très relatif. mais nag nit nag vraiment yaay xam ku nekk nag ak sa ak sa niveau. mais dama jàpp ne luy jeex kenn du ko jëndanteex lu dul jeex. super te nit du weddi boppam. dëgg la waaw parce que kenn forcé wu si nga nekk sous la bannière de kii que même autorité religieuse benn personne ne m'a forcé à rester sous la bannière de Tivaouane personne c'est mon choix. bien c'est ça. kon bu ñu jeexal ñu delluwaat ci Tivaouane rek. Coscas mhm. euh, euh, mu ngi def liggéeyam d'accord mais bay euh, fixer ay objectif at mu nekk. Mhm. ni euh, lii bëgg nañ ko atteindre lii bëgg nañ ko soppi ñu xam ne organisation bi daal mu ngi dox. Mhm. waaw bien sûr tout tout dépend de des orientations yi xalifa bi décliné mhm. souvent chaque année donc euh, on l'écoute ba mun a def leen organiser leen nii def leen que sous tel thème def leen nangam ak nangam mais il y a des fondamentaux qui changent pas. mooy le mooy le format. waaw xam nañ ni Seydi Hadji Malick ni mu ko. organisé mooy fukki fan dañuy jàng burdu donc euh, en 2000 li ñu ci amoon rek mooy demander à ce que ñu ñu populariser décentraliser les bourdes ça ne se passait pas comme ça hmm. donc euh, on a ci xadara waaw waaw vraiment partout dans le Sénégal hmm. parce que bu jëkkoon ci zawiya yi partout dans le Sénégal partout dans le Sénégal daayira yi léegi di ko def da ngay dem si yenn place publique yi par exemple boo demee place de France day am burdu boo demee obélisque obélisque. même xadara yi sax. voilà même xadara yi waaw day day day day am burdu vraiment en Paris en France. Mhm. vraiment Paris daayira yaa nga fa dañuy dañuy def ay burdu populaire. Mhm. en Suède dañuy def euh, dans les pays scandinaves dañuy def burdu populaire. d'accord donc euh, loolu daal lañ si demandé woon boobu sëñ Mansour moo fi nekk xalifa ñu ko daal dañ seetlu burdu ba commencé. parce que nit ñi dañuy déplacé di dem Tiwaawan di ko fa jàng ñi gën sawar sa gudd ñu dem ñibbi si waat waaw donc ñeneen ñi lu ay néew zawiya Seydi Hadji Malick ak ay raar jàkk nga daan gis ñuy jàng burdu yokk naal burdu ni mu demee te li wéer mooy Seydi Hadji Malick bu si jublu woon waa këram rek di ko jàng daf ñuy jàngaloo mimiya wala nunu ya mooy téere bu mu defar mhm. mais bu jël bu jëlee bu Buseyri téere Buseyri nga xam ne Buseyri moom que tu sois Tijaan Murid Layen vraiment même salafiste <laughs> c'est une œuvre boo xam ne ñëpp xam nañ sacralité donc tey jii jànge ko Touba jànge ko Layène mhm. vraiment du sign ne da nga appartenir à quel n'importe quelle confrérie d'accord euh, ren am ngeen thème pour pour gàmmu gi ren lan la thème voilà donc thème bi ni ko xalifa bi articuler mooy retourner les gens vers la guidance sous la guidance du prophète C'est sur la guidance du prophète que nous orientons les générations on la ko intitulé mais daanaka rek mooy waat euh, li yàlla santaane wax ni ci yonent bi daal proposé naa leen ko comme référence ak exemple bu ngeen war a waaw donc bi hadi rasuli ni wajjihul agial loolu lañ ko defee loolu la tudd sur la c'est sur la guidance du du du prophète que nous les générations d'accord tuub mais loolu yëpp wala kum fi rasulillahi uswatun xasana li alquran wax mooy vraiment yàlla moo ñu proposé yoneen comme ku ñuy roy laaj mm. Maalik da daan wax ne Cheikh ay sama sëriñ mm. mais maamam lañ ma roy loo te ku xam ni mu mel ak Cheikh ak li Cheikh doon mm. danaa day mooy sama sëriñ mais maamam nag lañ ma roy loo tey jëfi Seydi Hadji Malick mooy loolu sa sëriñ a ngi fi di la di la orienté di la digal mais roy moom alxuraan ko yonent bi lañ ñu roy la gàmmu gi dañu gis yeneen euh, xew-xew diine ci yeneen gox dina am ay tere des interdits bëgguñu lii ci dëkk bi bëgguñu laa di artu fidèles yi bu ñuy ñëw ñu waajal seen bopp mhm. euh, Tivaouane est-ce que mun nañ dem ba yegg ci niveau boobu non duñ fa yegg nous nous préférons conscientiser et éduquer ok vraiment d'accord vraiment ñun daal nous préférons conscientiser et éduquer. d'accord sama benn mag da daan wax ni nit li yàq si moom ba muy def yenn yi caravage boo dóor si yaramam lu tax mu bàyyi hmm. waaw. benn mag daf daan wax benn <laughs> daf ko daan wax kii policier yi. d'accord ne kii li yàqu si moom ba muy def li liis gi ngay dóor si yaramam mënul yegg fi fi yàqu. fi yàqu mais kàddu gu kàddu gu yiw. Hmm. waaw uddu ila sabi rabbik bil hikmati wal mawizati al hasan waaw la conscientisation la puissance du verbe mën na yegg ci xolam et de l'exemple aussi ba mu bàyyi lool d'accord mais tey jii bu ñu yoroon suñu yat ku fa dugg nu sëllëx la suuf ne la génnal fii membre yi dinañ dinañ arrivé membre daf nag sulu noonu ñu génn ko ci COSCAS ah si si bien que nag yow yaay comprendre yow mi njiit xam ne xale la ay xale lañ bu jëkkoon kenn xalaatu ko parce que ña fa nekk ay mag lañu orientation bi déteindre na si ñoom. Mm-hmm. Euh, tey ji xale boo xam ne son premier contact avec Tivaouane par Coscas la ko jaar. Mm-hmm. kooku bu fekkee erreur bu mu def nga dàq ko moom du baax mais nag dañuy sanctionné. am na ñuñ dàq. Mm-hmm. am na ñoo xam ne vraiment dañu wax ne. seen comportement waaw dëgg dëgg cette votre place n'est pas ici. super voilà. Euh, mu mel ni kon maam Ousmane Samb Samb la wala Samba. bon sàmba la xam nga mais libu yi rek. libu yi sàmba laa wax. sàmba sàmba loolu nag moo ñu topp ba <laughs> moo tax boo demee suñu fan yi ñii sàmba E ñi avec A ñi avec B. mais rek mais man nag sàmba la ñuy bind comme bind nañ ko si kayit gi ba noppi. moo boo ne maam Ousmane sàmba ñu fekk vrai dañuy foog ni sax mais sàmba rek mais sàmba lañ bind moo tax. fi ma yaroo Thiès Somme. waaw foofu dafa waa Koskas ñoo ma waroon. ah d' accord waaw <laughs> Ibrahima waaw le premier président di COSCAS. waaw ok moom ñoo dend kër ay ñoom doom ñoom mas. waaw ah, Hamza Samb ma ngoog ah suñ doom baay yooyu. Ah, waa kër ñoo dend kër. ah mu ngi loolu donc organisation bi dugub yeeg génn yi ak réunion COSCAS yi. ah c' était. taw xale da nga gis réunion guddi réunion bëccëg. ba léegi ba léegi. teg chaise yi guddi. ba léegi. vraiment bu finalement COSCAS ah, da ngay day mel ni da nga bokk COSCAS. ba léegi ba léegi. donc euh, c'est premier président du El euh, Ibrahima. boo njëkk nekk président COSCAS et il a il a nekk na ko pendant longtemps. nekkoon nag un vrai c'est un leader. à tout point de vue. la yàlla yokk leeram. donc ñu lay gërëm. di vraiment di fàttali rek ni. Euh, maam maam Ousmane Samb. lañ mhm. doon dalal. Mhm. moom mi jiite euh, li nga xamante ni moo di commité d' organisation au service de Khalifa Ababacar Sy di COSCAS. Mhm. yor lépp luy organisation. ci gàmmu Tiwaawan sa kàddu gu mujj peut pour euh, pour waajal pour lancer ko fidèles yi. di ah. war a ñëw ci mawlud bi. ah wax rek ne vraiment maam ju baax moo ko fàggaloon société am. Hmm. Seydi Hadji Malick vraiment gannaaw bu mu amee une lecture très critique. Hmm. et lucide sur la société sénégalaise vraiment xam ne aussi jot na mu contribuer à l'émancipation progrès du Sénégal par la religion donc moo ñu tànnal bés boobu dañuy wax ne moom loolu rek la santaane gàmmu isi des yëpp taalibe ko fàggu moom li mu fi bàyyi mooy bu gàmmu jotee ngeen célébrer juddu yonent bi te la tax tam ñu war si compter wax nañu ko bind ñu ko wax nañu ko loolu yëpp mu ngi dellu si profil yonant bi ndax yàlla moom waxoon ni moo ba muy dund la ko waxoon tànk yaa ngi si biir yaa ngi seen biir duma leen fitnaal duma leen teg nattu yu diis boo fi jógee aussi tànk ñu ngi delluwaat si man di ma baalu duma leen teg fitnaal waaw du ma leen fitnaal mag ñi nag loolu lañu gis xam ne teewaayu jëmmi yonante bi moom sauvetage la si jullit surtout nag bu fekkee da nga koy utal bés yoo xam ni da ngay fàttaliku jëmmam di fàttaliku ay jëfam di fàttali ko ay valeur am ci jublu si rey ko waaw loolu daal euh, dundal sunnaam donc moo taxoon mu sant ñu bisu gàmmu ni mu koy defee di ko defal boppam bu jotee fukki fan muy muy jàng burdu ñu noppalu ko benn fan buñ sa toppee ñu def gàmmu togg ay ñam joxe jàng alquran zikkar deflante lu baax takriman alal xusumi jublu si nag màggal yonent bi salaay salaam mu wax ni yonent yi ko màggal sax ba ñu jaaxlee bañ ko màggalee seen ajo faju kon wa ñun ñi njabootam donc bu ñu fàttali ko te ku yàlla rus la ku yàlla rus la moo tax mu bëgg euh, euh, yar si sunu xol cofeel si yonent bi parce que xol xol bu ëmbal yonent bi cofeel texe nga waaw loolu moom lu wér a wér la xel bépp xol boo xotti gis si yonent bi mu toog hmm. kooku sowe na loolu la xam nag donc moo tax gàmmu la ñu waajal ko rek ñun ñëpp ànd ñu ngi yaakaar ne di comme niñ ko daan àndee. télé bi itam dina ñëw ñu ngi leen si invité. 7TV 7 vraiment ñu ngi. waaw ah, ah, ñu ngi leen si ñu leen si xaar. vraiment bu ngeen ñëwee xam ngeen fi ngeen ñuy fekk. Mm, vraiment di la gërëm vraiment si sa. yéene non man maa la la gërëm si sa yéene lii moom bu amee tey. Euh, ndax naa ni xam na yaa ngi ci ah, yaa ngi ci. c'est par c'est par reconnaissance lii rek lañ la mënoon lii rek daal lañu la mënoon a fayee. vraiment ñëw topp nga ko topp ko topp ko chaque année rek muy moy <laughs> boo ne maa ngi dakaar ma ne la maa ngi Tivaouane maa ngi Tivaouane ma ne maa ngi dakaar moo tax tey daal jetine waaw am na solo vraiment dañu am tournée su ngoon gi ma leen may leen ma rek tey moom vraiment maa nga maa nga xënga <laughs> vraiment am na solo am na solo di yaakaar rek ni téléspectateurs yi tamit bég nañ ci lool ndax ki ñuy dalal vraiment li ñu koy faral di gis muy wax bëriwul mm. waaye waxtaan wi ñu am ak moom euh, euh, ñàkkul ñu bëri euh, amoon na kumpa euh, yu ñu bëggoon a leeral euh, te tontu yi amaana indi na ko donc di delluwaat di la gërëm maam Ousmane Samba jiite Koskas di wax ni yàlla nañu yàlla defal ñu tewe ay gàmm yu bëree bëri amiin kabar amiin waaw kenn bañ a manqué yëf yi di gën a mucc ayib amiin yaa rabbi vraiment li ngeen ci namm aussi li ngeen ci mbëbët suñu borom nangul ñu ko ñun ñëpp amiin amiin yaa rabbi jàmm ñëw ak jàmm amiin amiin amiin yaa rabbi ci accident yi amiin amiin ah, ak vraiment naa waaw message waaw tamit chauffeur waaw loolu de moom surtout xam nga gàmmu reen gi dafa mel ni cycle décennal lay ubbi bu gàmmu di tombe ak nawet hmm, vraiment <laughs> loolu moom waaw daanaka euh, le point de souci bi gën a fés hmm. mooy dafay tombe ak nawet surtout waaw donc nawet nag euh, li sëñ Moustapha di wax ku dox ku dox nawet dajeex yi fi nawet surtout tali yeeg bu bu sottee ndox mais daal le moo wax nga ko mooy ñu ngi ñaan daal parce que ku daw ndànk daa yegg hmm. ku daw ndànk yegg te senegal war nañ mbir daal bu demee ba jamono soppeeku lewatul hmm. euh, nit day dellu si waat si sago hmm. te sago nag ñi si ñi si oto yeeg ñi ko yor ak ñëpp dañu war a am sago te di ñëlante waaye bu fekkee rek koo gis bu la doublé nga mer duble ko waaw ah, am na beneen souci mooy ñi yor moto jakartaay vraiment liñ leen di ñaan mooy ku ko mën a teg nga teg ku jël oto yi parce que ñoom itam lu bari da ñoom bu dul entre eux choc frontal dañ def benn geste dugal oto tam si choc yooyu yëpp je pense que jot na daal euh, bés yi ñuy dem si gàmm du bés yu yàgg. moo tax vraiment am si sago pour deux trois jours pour sauver ay vies wàññiwul dara. waaw te it nag nit ñi ñoo war a euh, intégrer cette prise de conscience pour que daal ñu xam ne la vie est sacrée. waaw te loolu sëñ Abdou da ko daan. loolu loolu la daan njëkk a déglu gàmmu ndax kenn gaañuwul ndax accident amul ndeysaan buñ ñëwee wax ko accident day am na malheureusement da ngay gis mu triste da ko daan ñaan yàlla da daan ñaan yàlla yàlla ba fu kenn loru yàlla ba fu kenn loru bu daan dem ba ñëw accident amul day bég waaye bu amee na oh ñu yàq nañ suñu gàmmuwaay donc daf si daan def lu nekk di si ñaan di si saraxee parce que tam lu tiis la lu tiis la organiser mbir nit ñëw ñàkk fa bakkanam mënul ñàkk màkk sax dañ fay ñàkk bakkan mais nag daal des fois daal c'est daf lay dafa dafay metti mais ñu ngi ñaan ñëpp ñëw ak jàmm delloo ak jàmm vraiment ñu di leen ñaan yéen itam ngeen accompagner ñu loolu vraiment di def ay message pour euh, sensibiliser jërëjëf ma nuyu la lionne de votre télé. Ah. ñu koy suivre nag xaw ma nag. voilà vraiment <laughs> waaw ngeen nuyu ñu ko moom tam yàlla yàlla ñu ngi gis ñaar yi ñuy def si moom. Hmm. si abnégation yàlla na yàlla jubal télé bi te yàlla barkel ko. jërëjëf voilà. <laughs> kon euh, mbokk yi xarit yi lii la leen indiloon ci waxtaan di leen gërëm di leen sant ci teewlu bi di am yaakaar ni vraiment. waxtaan wi eh, neex na leen te jëlee ngeen ci vraiment ni ma la ko waxee sànq rek ñu ci bëri ñu amoon ay question njortu naa ni amoon naa yéene seen mm-hmm. question ma yeggale ko ci jiite Koskas kon euh, bu fekkee am na lu ma ci fàtte tamit ah xanaa ñu xaar ba beneen yoon rek. waaw incha allah boo ngeen ñëwee moom nu ngeen ko bëggee rek. vraiment. ok jërëjëf kon ñaanal euh, à la ñu am gàmmu mhm. ñu gàmm ko ci jàmm ak salaam mhm. teewe ko ay at yu bëri di leen gërëm di leen sant yéen tamit di leen mbokki téléspectateurs yi mhm.